ginnaaw ñëw bu maître Abdoulaye Wade ci dëkk bi ci Touba ci ajuma gi ñi nga xamante ni ñoo bokk ci parti bokk gis-gis jël nañu dogal dem ànd ak kii di Idrissa Seck ci loolu ñu doon amal ak daje ci seen permanence ba nekk ca Mbàkke ci teewaayu euh, député Serigne Abdou Bara Dolly ak soxna ne mbay président Papa Diop jóge fi dem France seeti président Abdoulaye Wade ba mu fa jóge mu ñëw jël décision ci turu parti bi pour seet benn candidat bi nga xamante ni moo gën ci candidat yi moo fi mën a jële makki Sall mi nga xamante ni moo fi toog muy candidat Idriss Seck candidat coalition Idy 2019 fii dañoo war a passé ay nax ak i naxe xam na li fi xew kenn ku nekk xam nga ki man sa baay te Serigne Touba moo man ñëpp képp ku fi di nekk ci département bi di yëngu ci politique man maay sa baay ci politique bi waa APR daw xam ne gaynde gaa ngi ñëw seen kaw nan ma bàyyi àll bi ndax bu ñu moytuwul dinaa leen coob coobaale seen kilifa. président Idriss Seck dafa ma woo téléphone ni ma damaa bëgg nga jàppale ma ne ko mënut a nekk Pape Diop woo ma ni ma dama bëgg nga jàpp Idriss Seck ma ne ko mënut a nekk lu dul lenn mu ne ma ban condition la ma ne ko mu ñëw Touba tuubal sëriñ Baara jéggulu ko ma ànd ak moom te def na loolu loolu moo waral. ma jël engagement ci ginnaaw bu ma amee ndiglu samay waajur ak seenu ñaan te lépp loo xamante ni ma wax nan ma ko gis naa ko fas yéene naa jël département bi teg ko si loxol Idriss Seck incha moom muy fësal ne Abdoulaye wadd wax na ne. du ma sa àndal ñenn ñi nga xamante ni jàpp na ne dañ koo wor. waaye ñoom dañoo trahir dañoo wor Abdoulaye Wade bu leen kenn jige ndax ñoom Macky Sall moo leen jox ndigal ni leen bu ngeen demee Touba fexe leen maanaam ba def ay bulletins yoo xam ngir ñu wotee leen. woteel ma ñooñu ay workal la ay traité la ndax bu Karim Wade géddee nekkul candidat ñoo ko def ñoo ñooñu xam nañ seen bopp du ma leen tudd. am na lu may dégg am ñu di ko wax muy waa APR xam nañu ma xam naa leen waaye fii ñi lekk xaalisu Ablaye wàdd xam nañu ko ba pare wor ko fii jëru jëruñuy mbubboo sëriñ Touba sëriñ Touba mooy sëriñ Serigne Mountakha Serigne Mountakha waxul. képp ko wax ni sëriñ taxaa dafay jàppale Macky Sall waxuloo dëgg sëriñ mun Mountakha sëriñ tuubaa la àndal te sëriñ Touba mi ngi fi mu nekk te démb gisante na ab Ablaye Wade waxtu ak fanweeri minute ñoom ñaar si benn nekk te ko mus kenn mus koo def kon xam nañ fi mu féete waaw loolu na ko nit ñi bàyyi xel. ci loolu député Soxna Kiné Mbaye daal di nay fekki waa Idrissa Seck yokku si ne taxaw na temb ngir xeex kii de Macky Sall. ñun département boo nu tegaloon yaaw jaal sax dañ koy woteel dama leen di ñaax yéen kenn mënu leen ci waar damaa bëgg ngeen takk seen ndigg góorgóorlu bi si élection ba dugg leen porte à porte mobiliser nit ñu dem génn dem woote ji ndax loolu rek moo koy faj gis ngeen su ngeen sàgganee ba Macky Sall jëlaat réew mi pétrole beeg gaz bi français yi la koy jaay te loolu ngeen koo bañ bu ko defee sunu doom yi ñëw ëllëg du nu am ci lu ñu jàpp jigéen ñi sonn nan ñoo ko doon dund bi te naa ni ku ne xam na sama taxawaay ci assemblée national ku ne xam na sama bëgg-bëgg ku ne xam na sama ngëm-ngëm yaakaar naa ni Touba lebal naa leen loo xam ni li ma koy fayee mooy jox Idriss Seck seen voix pour mu gagné Touba ak Mbacké ci élection 2019 maa ngi wax ñi nga xamante ñoo nekk APR borom fas yi bopp fas yi nañu xam ne fii fas moom du fi ñaan ñeex fas woo xamante ni amoom ngooñ munoo daw te loo wax du dëgg dama ne fas woo ma doon laa war a génn dëkk bi te Macky Sall saay saay la saay saay la Macky Sall saay saay la